asalaamaaleykum internet Senego TV ak Kawtef ñu ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay di kontaan rek saa ni ngeen ñuy suivre di topp suñu programme suñu différentes plateformes comme ni ngeen ko gisee rek à chaque fois que actualité am ci dëkk bi dañuy def li nga xam ne mooy tour daal di jox suñu micro des personnes influentes yi nga xam ne bu ñu waxee dinañ leen déglu. tey nag ñu ñëw seet si ki nga xam ne mooy Cheikh Gadiaga homme d'affaires chef d'entreprise euh, Sénégal ñëpp xam nañ ko Cheikh ñu ngi lay nuyu di la dalal bu baax ci Sénégo TV ak Kawtef. waaw euh, maa ngi lay fay euh, sister di nuyu sa caméraman bi di nuyu waa Sénégo di nuyu itam ñi nga xamante ni ñoo leen di ci réew mi ak bitim réew di ñaanal. Serigne Mountakha xalif général des Mourides ñu yàgg fi lool te ànd ak wér di ñaanal sunu président Alaaji Macky Sall collaborateur bi nga xamante ni dañ koo am ak moom benn Bokk Yaakaar sunu mission ak moom mi ngi war a yem deux mille trente allah. di ñaanal yàlla defal ko jàmm defal ko soxnaam defal ko mbooleem ku koy jàppale ngir mission bi nga xamante ni sénégalais yi dénk nañ ko ko. yàlla yen ko te yàlla yen kenn mënu laa yen hmm. d'accord dinañ ci dugg parce dafa dafa nuyoo rek dugg ci débat bi ak Cheikh tey dinañ wax actualité actualité bi nag li ko gën a dominer bokk na actualité politique procès aji Sarr sorti yi nga xam ne mu ngi am ci boobule procès wante ci entamu propos da nga commencé horizon 2035 Cheikh yow dafa mel ni boo waxee 35 da ngay confirmer troisième mandat te dañ ko fii tere. waaw deuxième mandat amul euh, troisième mandat amul deuxième quinquennat moo am ndax euh, article 27 bi justifié na ni président de la république bi def réforme yi sept ans bu njëkk bi bokk ci. ñaari cinq ans la ñu wax te def na benn incha allahu rabbi euh, beneen cinq ans bi 2024 lay commencé jëm 2029 loolu kenn mënu ko koo xaj kenn mënu ko koo tere wax naa ci émission yu bari su ko bañee sax ñun ñi nga xamante ni ñoo créé mouvement Falaat Macky 2024 dañ koy topp ci yoon ci tribunal yi gën a mag pour mu toog àggale liggéey bi ko sénégalais yi dénk déet waay ndaxte déjà boo ne dañ koo koy dañ koy topp tribunal ngir mu àndaat fi mu toll nii su fekkee demul te fi mu toll nii comme ni ma ko waxee samay kàddu deux mille euh, troisième mandat dañ koy tere du samay kàddu wante jeunes yi da ngay gis ak société civile ak opposant yi société société civile ñu bëree baree bari ay corruption lañ ñi nga xamante ni ñooy euh, ànd sàmm jikko yi ñu ci bëree bari ay corruption lañ ñu ci bëri man damay dem Mermoz ñu ci bëree bëri dañ fay ñëw am na ci loo xamante ni nii bu ñu génnee ci mbedd mi non bu ñu non dañuy ñëw di sàkku ndimbal ñu leen di dimbali bu ñu génnee di wax population bi leneen nañu arrêté gis nga dëkk bi kenn mënu koo taal dëkk bi kenn nelawul bu guddi jotee dañuy delloo bunt yi waaye kenn nelawul am na ci loo xamante ni ñoom nañ ko arrêté gis nga Moustapha Diop bu wal fajiri bërki démb moo ci mujj lan la wax mu ne Cheikh Yérim li bind ci livre bi bu doon ku nekk la ngay gis Mermoz da nga koy nettali kon du baax ndax moom day dem Mermoz lan lay wuti Mermoz mais journaliste non defal ndànk journaliste lan lay wuti kër président yaa a quelque chose ñun xam nañ ni mu demee te bu demee ca groupe euh, Walfadjri day am beneen taxawaay ak beneen gis-gis boo xamante ni moom la fay def xam nañu lu xew nañu arrêté réew mi ñoom mënuñu ko taal ay jeunes lañ comme ñoom benn bu mu leen jaral pour ñu bëgg a taal réew mi jaral nañu fukk pour ñu protéger réew mi te loo xamante ni dañ koy def ak lucidité ak loyal mënuñoo taal réew mi li xew ñun xam nañ ni mu demee xam nañ ñu ay association malfaiteur lañ def hmm. ndax làngu noonu du tuuti ku nga jëm opposition bi nañu réglé ay violeur ñoo fa nekk ay ñoo xamante ni dañoo def ay avortement nekk ci dëkk bi foog ni ñoo moom dëkk bi dëkk bi moomuñu ko seen ndey moomu ko seen baay moomu ko dëkk bi santul Sonko santul Sall santul neneen ak neneen nañu arrêté te bàyyi li ñuy def te ñun lu ñu xam dafa bari. mais ça vole très bas. cher bu nekkee débat bi yegg si na ci niveau bi. ak ah. yenn wax yi yenn yenn jëfante yu bon yi est-ce que loolu lañ doon xaar. aussi ci politique mais jëfante lu bon amul fi Ousmane Sonko yolam gajo dégg nga ko li mu wax barki démb Kër Massar nee na gat sa gat sa. comme gat sa gat sa la est-ce que du dafa sës. man yi ni ñuulal sa nawle du la tax a weexal sa nawle du la taxa a ñu Ousmane Sonko bu sësee benn sës nañu fukk. kon nañu arrêté te xam ni dëkk bi dëkku jàmm la te xam ni dëkk bi. dëkku Serigne Touba la dëkku maam Limaamu Laay la dëkku Cheikh Sidi Hadji Malick la ñoom mënuñoo taal dëkk bi tuuti nañ ci président de la république bi mu ñëwee réforme yi mu def ci wàllu justice bi yokk tribunal yi gën a jël magistrat yi leen seen cër jox leen seen gëdd wàllu santé bi wàllu infrastructure lu nekk jàpp na ci créer DER ah soxnaam tey registre yi mu yor nga xamante ne da ciy dimbali ñuy feebar da ciy dimbali wéy. na euh, ñàkk doole yi yow nag Cheikh nag Cheikh nag kenn lu mu toll. Cheikh nag Cheikh nag kaay ñu waxtaan rek nag. Cheikh ah. tey fi mu toll nii boo ne euh, ñu taal dëkk bi. ak mhm. aussi seen discours. Mhm. mais Cheikh tey est-ce que mus nañ gi Cheikh Gadiaga mu ñëw rek wax benn discours boo xam ne arrangé wul état parce que Cheikh sorteem day tagg Macky Sall day tagg soxnaam Marième Faye Sall aussi loolu Cheikh boo ñëwee. non man di représenté jeunes yi tamit. fois aussi cher non waxuma waxuma représenté yi man dama bokk AFP. AFP jóge ci loolu combattre ànd ak président de la république ñu def association xam nga. def mm-hmm. mouvement Benno Bokk Yaakaar. Mm-hmm. am na ci loo xamante ni duñu nangu kenn koo xamante ni day jël réew mi bëgg koo taal comme Ousmane Sonko. ba muy dem suite Sweet Beauté Macky yenn wu ko ba muy dem Sweet Beauté maa xam wu ko Bassirou Gueye wu ko moom moo dem bànnee xam seddu la ci seddu ma ci kon nag Sénégal yi am na ci ñoo xam ne bu ñuy yéeg kenn du leen yëg waaye bu ñu wàccee ni ñëpp ñëw leen jàppale ma dootuñu bàyyi kenn koo xamante ni day yëkkati benn kàddu bu ñaaw di ko teg ci président de la république képp ku ko def da nga dajeeg ñun ñoom li ñuy wax ci kaw ak li ñuy wax ci suuf bokkul ñun c'est kër góor gi am nañ fa kër dañu fay dem fépp foo xamante ni jàpp na ni danger la moom moom moo tal loolu mais ñun lijjantiwuñ ko faale ko fii boo yëkkatee sa loxo càmmoñ ni faalewu ma kenn yëkkatil sa loxo ndijoor ni kenn faalewu ma moom président de la république defu ko nawle ndax président de la interview bu mu def buñ ko ci mësee laaj du ko tontu du tudd turam xamul sax ni un ancien escroc bu tudd Ousmane Sonko am na kon na réglé li mu def impôt mi ngi taxaw li mu def ci réew mi mi ngi taxaw xale yi nga xamante ni daf leen doon làmbatu ci élection yi mais Fatou boo ko njëkk a wax Cheikh ko ci livre am Massaly sama confrère démb bërki démb euh, euh, wax na ko ni la mu def Thiès ma nga fa tege ñoom moom faible boobu la am kon Adji Sarr lañ ko mujjee tuumaal moom moo ne dafa yàkkamti woon li nga xam ne mooy procès am procès am na na dem wuy ji la dem wuy ji loolu la te xam ni euh, li sëriñ taxa wax sëriñam démb Poroxaan dafa daw yaram. justement ci ci audio boobu ci audio boobu Cheikh tey est-ce sëriñ yi duñ leen génnee ci langum politique parce que it ñu bëri ñu ngi naan ne authenticité audio bi est-ce que c'est vrai parce que it sëñ Mountakha euh, talul àdduna moom ci liggéeyu sëriñ Touba la nekk tey bu ñu ñëwee génn ne sëñ Mountakha moo ne Ousmane Sonko na bàyyi tooñ ak ñi mu àndal problème la est-ce que waxu sëñ Mountakha la tamit mani mani sëriñ Mountakha la mu wax. moo ko wax sëriñam démb te ba mu koy wax ay nit dafa nekkoon ñoom ñoo jël vidéo bi jàpp ni sëriñ Muntaxa dafa doon yóbbante pour Ousmane Sonko ñëw wuy si ko bi ñu demee ba ci biir nag ña fekke woon waxtaan bi génn wan ni Ousmane Sonko sëriñam jëlewu fa loo xamante ni moo ko ne ndax sëñ Muntaxa ci dëgg lay dox lam ko waxoon ne ko ki ñu dee ci problème bii yaay responsable bi loolu la confirmer sëriñam dem Ousmane Sonko na bàyyi tooñ Ousmane Sonko sëñ Muntaxa xàmmeewul catholique sëñ Muntaxa xàmmeewul kenn nit la koo xamante ni képp ku ñëw da lay ndax li mu yor njaayum jàmbur la sañu koo jóor fu ko neex bu taxawee ni ay weer a ngi nii maa ngi bëgg a gis mun Muntaxa mënuma koo gis loolu c'est faux moo tax wax jooju dafa métti sëñ Muntaxa métti ñu ñun ñi nga xam ne ay murid lañ ay taalibe sëñ Tuubaa lañ Ousmane Sonko ci jaxase xelu sénégalais yi ci lay xëy ci lay gont xam nga président de la république du fi nekk di tontonte ndax du moroomam ci dara ñun ñi nga xamante ni ñoo bokk génération ak moom ñoo koy tontu ci gat sa gat bi mu wootee. fu foo toll sa takk ak Adji Sarr. non Adji Raby Sarr euh, mi ngi si jàmm fi mu nekk nii ñu ngi ci cappaandawu dossier bi incha allahu rabi fan yu néew rek dinañ ko officialiser. yéen ñaar ah bien sûr. léegi ban position lay toogee aaw ñaareel. non loolu du problème mooy aaw mooy ñaareel mooy ñetteel mooy lépp. Adji Sarr moom est-ce que nekkul da est ñeme nga Adji Sarr aussi non Adji ñu ngi wax téléphone Adji nit la ku am courage. te dafa am foo xamante ni fa la toll nee na affaire bi nañ ko yóbbu arena te effectivement. arena ba maa ngi lancé un appel à justice. dossier bu mel nii dañ ko war a médiatiser def ko procès public ubbi ko ñëpp ñëw toog parce que. dossier bu mel nii fi ko Ousmane Sonko yóbbu mosu fee am fi ko Ousmane Sonko teg mosu fee am man nag de wax dëgg neex yàlla bu fekkente ni nii ñëw naa ci réew réew ma ma ñëw sama papa nekk guerrier ba def ay fait criminel dem ci kaso su ma ñëwee damay topp sama tànk baay dem prison mais yow mm-hmm. amul lenn loo xamante ni ñun danañ ko ko may fu mu ñu woo danañ ko fa fekk. mais est-ce que du am raison du am raison ci discours am président de la république bi mu wax dina jël bakkanam. wala moom président de la république jël ba président du jël bakkanam moom balaa jël président bakkanu président de la république. ñun ñi nga xam ni ñooy ndaw yi nekk ci parti bi nekk Benno Bokk Yaakaar ñun lay njëkka jaar ci suñu bakkan ba pare. te moom kaay ma wax la benn affaire maa ngi gis meeting bi ñuy wane ak yu mel noonu Kër Massar terrain ba tere terrain ACAPES ñëpp xam nañ ko terrain ACAPES moo ko mobilisé na nag di copier coller di dajale de la République na fi bi muy clôturer campagne am 2019 fan la ko tëjee Léopold Sédar Senghor Ousmane Sonko waxuma la Léopold Sédar Senghor bu ñimee na dem ñu jox ko arena ba xam dina ko feesal nit ñi wan nañ ko ginnaaw xam nañu c'est un malfaiteur xam nañu du koo xam ne nit ku cohérent la. mais tey est-ce que Sonko Cheikh dañuy dégluwante Cheikh Cheikh dañuy dégluwante tey ni ngay waxee nii tey est-ce que Sonko du am ci yenn raison sànq say kàddu yaa ngi naan ne procès bi Adji Raby Sarr sax bëgg nañu dem arena tey arena ñaata viol lañu la ñu àttee eh, tribunal bu Dakar bi te dara yënguwul tey bu ñuy wax arena est du am raison ci yéen tamit ñun liñ ko bëggal mooy liñ koy jiiñ moom xam na ni moo ko def tey aji Sarr dafa laaj procès public tey kenn mënul dem ni damaa dem bërëb def fa fukki minute quatorze morts am kon moom li sama frère Massaly wax démb faram fàcc bu fa defoon une heure de temps xanaa Sénégal yëppay dee moom na réglé te xam ni nit ñi dañoo yore ay dossier moom ngaaka la te bu jouru procès ba billaahi wallaahi wa taala fii laa toog Sénégal yëpp danañ génn ci moom moom dafa jàpp ni Adji Sarr fàggandikuwul woon boppam. c'est-à-dire dafa jàpp ni Adji Sarr amul loo xamante ni moom téyel na ko ko moom. kon lu tax aji wane wu ko. ci confrontation bi la koy lu koy wane confrontation. parce que bi ñu laajtee aji nee nañ aji a xamal ni waa ji c'est un manipulateur. juge bi dana ko dossier bi nga njëkk a wane wax ni yow da ngaa feebar ba tax ngay faju ji est-ce que dossier boobu tribunal mën na ko am mu ne ko sama wér-gu-yaram la mu ne ko est-ce que am nga kayit buy firndeel ni. bindal nañ la ko pour nga war a dem di maase wu mu ne sama wér-gu-yaram la ñu ne ko pourquoi nga dem jël rapport gendarmerie pour bëgg a sa bopp te yow waroo yor rapport gendarmerie nga ëlbatiku dem jël dossier boo xamante ni yow amoo ci accès ñu lay laaj dossier boo xam ne yow yaa ni dossier bi da nga koo génne pour bëgg a dem faju ji dossier boobu mënoo koo jox amul benn dossier médical la preuve bi ñu dóoree grenade lacrymogène keroog gis nga moo gën a gaaw Usain Bolt dox ci maayanu sénégalais yi nga taxaw ni sa doom da nga koy plaider pour mu dem jàngi yeneen doomu jàmbur yaa ngi leen di woo pour mortel combat sénégalais yi nañu yeewu man képp koo xamante ni muñ ma déggal maa ngi lay lancé un appel solennel na nga bañ a wuyu Ousmane ci lii nga xamante ni da leen ci woo te xam ni boppam moo ko ñor te xam ni c'est un xoolal kër gi mu dëkk cité kër góor yi kër gi mën na 500 millions moom nee na sàccul xaalisu impôt moom nee na lebul moom nee amul dara kër googu salaire mënu ko koo may. même bu defoon période bancaire. kër googu salaire am mënu ko may 15 ans yi mu def foofu mënu ko mais nag mais nag kii mais non non attends foofu foofu foofu foofu kii cher cher foofu il faut comprendre cher cher on s'écoute on s'écoute cher Thomas Sankara amul woon kër gu mel noonu amul woon oto bu mel noonu amoon na capacité am ko on s'écoute parce que il faut comprendre que projet PASTEF des tierces personnes yoo xam ne ñoom ñoo ko porté di ci def aussi seen financement ah. loolu mun nañ nangu tey ne ñooñu mun naa nekk seen alal wala it Ousmane Sonko nekk impôt et domaine yàgg na faa liggéey plus de dix ans mu ngi fay liggéey donc. bu fa defoon trente ans mënul am kër googu cité kër googu mënu ko am salaire am mënul rëy rëy rëy ba toll ci un million. salaire Ousmane Sonko bi muy liggéey inspecteur impôt et domaine mënul rëy ba toll ci un million. quinze ans la fa def quinze ans yam fa def mënu koo may kër gi mu am cité kër góor gi. looy wax ci Massaly yi Cheikh. moom muy muy comparé muy comparé Dubaï ak mais wax na dëgg bien sûr. Cheikh boo xoolee président de la république. stade bi ñu doon fubalee Qatar man maa ngi fa woon mais stade Ablaye Wade bi moo leen dàq. lan déet Cheikh Baye li ngay ah, woyu dew ma Qatar Sénégal ko yàq man damaa dem Qatar def fa un mois. ci début kan bi ba kan bi di jeex man maa ngi Qatar. stade Qatar moo dàq. ma ni stade bii nekk fii Diamniadio moo dàq stade yi ñu doon subalee. Cheikh li ngay def yow tamit parce que stade yooyu nga gisee dañ koo monté bokkul. Cheikh Baye li ngay wax non xam naa li ma la wax tey loolu la ñuy def di wax nag am loo xam ne dama koy lancé su la nel am benn ministre boo xamante ni Amadou Ba bi mu ñëwee choisir ko pour mu ànd ak moom liggéey waaye moom. tout le temps rek mi ngi nekk ci ay xeex mi ngi nekk ci ay euh, di di jaxase nit ñi mi ngi nekk ci ay lépp lu ñëw rek. Cheikh jubóo nga ak Amadou Ba léegi waxtaan dañuy waxtaan rek lu question jubóo Amadou Ba président moo ko nommé par décret ñun président de la république lañ am ku mu ni xool leen foofu la ñuy xool waaye am na ministre boo xam ne li ma wax dafa am solo na arrêté li muy def. na arrêté jeunes yi nga xam ne daf leen di woo di leen jox xaalis pour ñuy saaga Amadou Ba na arrêté. jeunes yi nga xamante ni daf leen di woo ministre bi nga tudd turam non dafa màgg rek pour lépp loo dinañ tudd turam mais dafa jotagul xam nga wax dafa jooy ñu ne ko looy jooy mu ne ki ma wax waruma maa wax waxtu yi ñu ma war wax jotagul fi ñu ma waxee waruñu maa waxee foofu dafa am loo xam ne ñu ngi koy nas mu am ñu mu yónni dama koy teel a araftu ne ko yëg nañ sa programme yëg nañ sa projet chaque jour lépp lu ñëw nga ne Amadou Ba moo nekk ci ginnaaw livre Cheikh Yérim ñëw nga ni Amadou Ba moo nekk ci ginnaaw di jéem a jënd yenn jeune ci parti bi ak Benno Bokk Yaakaar pour ñu tilimal deru Amadou Ba xamul ni ñooñu ay nitu Amadou Ba lañ ndax Amadou Ba tëjul ay portam képp koo xamante ni mi ngi nekk ci parti bi mi ngi lay jàppale ngir président de la république mission bi mu ko dénk ñëpp gis ci seen bopp mais moom ministre boobu su arrêté wul danañ sori torop ci moom ak njabootam ak ni nga xam ni moom la ñu nekkee ci dëkk bi non bien parce que am na benn femme bu am na benn bu mu yebal ci man bu nekk Amérique man li may wax dama ko xam femme bi woo ma di ma proposer pour ma destabiliser Amadou Ba xamul ni Amadou Ba sama xarit la te femme boobu da koo jege moom ministre boobu na arrêté li nga xamante ni mi ngi koy def di jaxase Amadou Ba ak population ak Amadou Ba ak parti bi te xam ne Amadou Ba njëriñ bi mu amal parti bi ak njëriñ bi mu amal population bi moom amalu ko président de la république moo tax Amadou Ba bi mu ñëwee seet ko ni kii mënumaa liggéey ak moom tey ñëpp jox nañ Amadou Ba raison. waaw mais Cheikh. waaw Cheikh politique Sénégal Cheikh. tey mu ngi défendre Amadou Ba. Cheikh mu ngi défendre non man président laay défendre. waaw xaaral rek xaaral rek man défendre ma Ba. Cheikh nañ dégluwante mais président képp ku mu par décret. jël la ci 17 millions d'habitants yi ah. du ma nangu nag kenn koo xamante ni daf lay attaqué nañ nañ dégluwante Cheikh tuuti rek tey Cheikh mu ngi mu ngi défendre de Ba Cheikh mu ngi défendre soxna Momi Kébé Cheikh mu ngi défendre euh, soxna euh, première dame Marième fay Sall Cheikh mu ngi défendre fami APR dama ni la gaal boo ci nekkee dangay ñaan borom gaal ga mucc su borom gaal ga muccee nga mucc dama ni képp koo xamante ni dafa nangu président de la république nommé la par décret ñun li ñu jàpp mooy soo sooxee président de la république moo sooxee kon képp ku ñu gis mu lay xeex danañ gaaw dénoncé ko attaqué la danañ gaaw dénoncé la attaqué la kon amul kenn koo xam ne fii Sénégal dinañ fi nekk di nangu ñu nekk ci biir parti bi di wut ay nit yoo xamante ni tekkiwuñu dara ay nit yoo xamante ni amuluñ benn njëriñ parti bi di attaque le ministre Amadou Ba wala gouvernement président de la République duñ ko may kenn moo tax nga xam moo moo moo xam nga nekkoon te jëlatuñ la ñu jëlee la fi ñu waxaat leneen loolu moom dootuñ ko may ma Samba dootuñ ko may ma Demba di wax nag ni président de la République ñu ngi koy sant di ko gërëm ci ni mu yoree Sénégal ci wàllu dund. ci wàllu sénégalais sonn ci wàllu. sénégalais xiif ci wàllu kilifa diine yi. kër gan yi nga xam ni defar na ko fi ci wàllu kilifa diine yi déggal bi mu leen déggal parce que ñu bari dañ doon wax ni mois de mars su kilifa yu diine yi interviewen mais mois de mars su kilifa yu diine yi interviewen moom moo nara a rey ñu bari rek parce que dañ koo diggal saraxu deret moom Ousmane Sonko mais est que tamit est-ce que tamit yéen ñu jege président de la république doo leen ko waxaale sénégalais instant bi malgré que li nga xam ne mooy ceeb mooy diwlin mooy suukar wàññi woon nañ ko mais ba tey loolu dafa métti parce que da gis sénégalais bu taxaw ne la dëkk bi dafa métti mais mani sénégalais est-ce que loolu yi man ci laa bokk maa ngi wax fii barki alxuraanu karim musuma am marché état musuma am kenn koo xamante ni jële na dara si état teg sama loxo géej am na ndox te taw taxul yàlla dimbale na ma dem tey soog a ñëw. Macky Sall vaar leen Macky wàccewul nit ñi ci àdduna bi nit ñi. mais Sénégal loxoom dafa ndànk rek dafa dañoo ñëw fekk àdduna bi di dox. mënoo tëdd ba xaaju bëccëg wala nga guddee ne la wala nga yeewu naan Macky Sall def na fi lii wala def fi laa ñun bokkuñu ci jeunes yooyu ñun dañoo nekk ay jeunes dem créer entreprise di jàppale président de la république créer ay employés di liggéey nit ñi di ci gis seen bopp dafa am ñoo xamante ni. ba àddunay tukki lu yomb rek lañ bëgg yàlla fekkul kenn mu nekk fa nga nekk mu ñëw ni la lii la ko jox mais ñu teg politique de développement dafa nag politique de développement moo DER ñaata nit la fi financé man am na ñi ñoo xamante ni ñoom politique mais DER financé na leen ngi def ay poulailler ñii ñi ngi def leneen ak leneen tey yàlla dogal na machines yi ci àll bi yu mel noonu di def diwlin ñoom ñëpp gis nañ ci seen bopp xam nga tey Sénégal yi daf ci bëri ñoo xamante ni li ñu bëgg dafa yomb mais mënuñoo jaxase population bi ak président de la république ndax population bi président de la république la ñu tànn fal ko falaat ko élection locale ñëw ñu fal ko élection législative ñëw ñu fal ko kon amul benn élection bu fi jaar boo xam ne sénégalais yi wan nañ président de la république ñun dañ lay sanctionné ndax defoo fi dara wala bëgguñu la loolu amul kon président de la république gàcce ngaalaama di ko ñaanal yàlla di ko ñaanal mais lépp ngi baax lépp a ngi dox lépp a dox macha allah mhm. lépp a dox d'accord Cheikh ñu bàyyi la sa dernière kàddu. waaw sama dernière kàddu mooy di leen remercier yéen waa Sénégal. Mm. di remercier aussi ñi nga xamante ni ñoo nekk ci parti bi yëpp. di jàppale président de la république di wax nag am na ci ñenn ci ministre ak ay directeur yoo xam ni dafa bëri jeunes yoo xam ne buñ leen woowee duñ leen jot dafa bëri jeunes yoo xamante ni buñ leen bëggee gis ñu leen gis may wax fii di leen lancer appel ni leen président de la république falu leen ngir loolu daf leen a fal pour ngeen tijji seen ay bunt daf leen a fal pour ngeen tijji seen ay téléphone ñu mel noonu ñooy yàqal président de la république parce que dañuy nekk ci dëkk président de la république toog war leen a jàpp jàppale leen jox leen ay moyens pour ñu jàppale population bi am ñoo xamante ni bu ñu toogee duñu jàppale population bi ba tax ñenn ñi di ci mere président de la république